xibaaru suba si dañu koy yu bàyyeekoo ci Xaadim Diop mooy secrétaire général bu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ci leeral yi xamle na ne sëñ bi terewul ko woote Touba euh, moom sang bu tedd bi li mu bëgg mooy euh, biccoog mbaaloo ko réeroog féewaloo gi nga xam ne dafay am ca dëkk ba ak yëngu-yëngu politique te di ko di ko waral nga bay jur kon ak féewaloo ci askan wi loolee la bëgg kon mu jóge fa euh, mu ne it lu aju ci daal bu ñu mënee kon daan dale sorale bi bureau de vote fi nga xamante ne ji moo di Touba loole euh, jëmee ko feneen ci li dëkk ba lii mooy bëgg-bëggam moom sëriñ bi Xaadim Diop la ñuy teewlu ay kàddoom mi ngi ci jokkoo ak Makumba Bey. am naa mbett lool bi ma déggee nit ñi di def ay commentaire ci wax yi kilifa gu tedd gi mu wax ci week bi ma jàpp ne daal nit da koy xam benn yoon sëriñ Muntaxa defe naa ne ginnaaw kilifa diine gu mag a mag googu mu doon ñëpp nungul ko ko ak acte yi mu fi wane ci citoyenneté wari son na ko jombale di firee waxam ji jeneen wax judul wax juy defar ak wax juy indi jàmm tuubaa nag da ngeen war a xam ne dafa am na mu mel ñoom campagne bu jotee politiciens ya fa nekk ñu jéggal ma ñoom danañ campagne ba campagne jeex waaye bisu élection bu ñëwee dañuy mel ne dañoo nekkaat ci campagne dañoo baaxoo di xiiroo ak ŋaayoo ñëpp a ngi fàttaliku bureau a seetaat seen bopp xam ne warul waaye sëñ bi ginnaaw xam ne ne mooy njaboote loolu faaw mu jóg wax ci du bàyyi njaboot gi di ŋaayoo di tisaaroo di xiiroo lan ci war a jëf nag mooy seet kon ana luy doon pexe ba vote boobu ñu koy defee ci bërëb yoo a am te ma leen faa wote wala boog yàgg na lool ñaar fukki at yii de wotee wu fa bu ñuy wotee danañ génn corniche bi corniche boobu nga xam ne Cheikh Saliou moo ko jàppe woon rëdd woo xam ne li ñu war a warmaal Touba lu mu néew néew néew waaye loolu jombul administration bi ak communauté bi ak commentaire yi ma dégg daal ñàkk nañoo fay sëñ bi borom lool lool ci maanute gi maanute di gëm nit ñi ak bëgg leen bëggal jàmm ak yéene gi leen ko yéene ak mu waxee moom fàttaliwaat ma ko léegi ne ma man la ma leen wax leer nag ba waxee ñoom ba nag bàyyi faali nee nañu seet nag na ma mën a amee kon moom li mu bëgg mooy na ma mën a amee ak na loolu nag kuy dimbale nit seet wax a fexee ba mu mën a jëmm mu jëmm loolu nag administration territoriale ba fa jëmmale waxi sëñ ba mu am la mu bëgg te nit ñi am lañ bëgg mooy voté sëñ bi nag citoyen la citoyen la du tere mel moroom citoyen mu exercer droit citoyen kàddu yi leeral yu bàyyi ko ci Khadim Diop secrétaire général bu xalif euh, général des